salaamaaleykum mbooloo mi maa ngi leen di nuyu bu baax a baax leen sant di kontaan seen teewaay fii ci siège bu feu Abdou Karim Seck mi nga xamante ni sama xarit laa ko tuddee mu génn àdduna yàlla na ko yàlla yërëm euh, di doomu HLM Grand Yoff tey nag mbégte la contentement bu mag a mag pour man recevoir leen fii ngeen xamante ni mooy HLM euh, Grand Yoff fas yéene waxtaan ak yéen ci li nga xamante ni mooy suñu candidature aux prochaines élections incha allah au soir du 23 janvier 2022 yàlla mën ñu may. li nga xamante ni moom la Grand Yoff yëpp di xaar si ñun Alioune Badara Kébé nag euh, footballeur la woon bëggoon ko nekk ci yàlla dimbali ko mu dem armée génn football Sénégal servir fii Sénégal nekkoon sapeur pompier aussi di football di football ba yàlla yóbbu ko bitim réew social nag moom dafa bokk ci ñun rek ndax àdduna moom koo fi gis dañ koy dimbali muy dimbaliwaate ay patriotes lañ dañu ñibbi si suñu réew xool naka la ñuy bokkee ci développement réew mi moom la biographie bi fi euh, chinois wax léegi ak Anta loolu suñu jaar-jaar la fii ngeen nekk siège la boo xamante ni ay footballeurs ngi fi ay ñoo xamante ni amuñu fu ñu dëkk ay yeneen nationalité sax ñu ngi fi dëkk ñu leen di jàppale di si jaamu yàlla te yàlla rek tax donc defe naa ni euh, élection kenn du ko présenté si ay euh, kenn du ko préparé si ay weer on est à six mois des élections defe naa ni euh, depuis deux mille 2014 bi ma ñëwee vacance la comprendre que am naa beneen mission bu ma war a dox lu dul nekk en Europe du football ndax yàgg-yàgg damay ñibbisi si la décidé arrêter sama carrière toog sama dëkk toog sama gox pour liggéeyal sama gox sept ans après defe naa ni euh, normal na population bi mën la porter et normal na yow tamit nga xool ndax attan nga ko pour que ñëpp ensemble Euh, ñu mën a bâtir un Grand Yoff meilleur ñun coalition la ñuy demee euh, coalition bi nag amagul tur boo gisee euh, coalition bi wutalaguñ ko tur c'est parce que dañu bëgg regrouper les fils de Grand Yoff parce que doomu Grand Yoff yi kese ñoo mën a defar Grand Yoff du tey jii maa ngi doon jël léegi exemple si Rwanda di wax ni euh, euh, Rwanda exemple la si Afrique mais c'est pas que Kagame ki a qui est en de fair le le euh, euh, son pays doomu Rwandais yi ñoo toog autour d'une table xool naka la ñuy defaree seen réew. defe naa ni euh, loolu moom ma animé pour répondre la sa première question mooy tey ñun fii lañ dëkk fii lañu am xëy na yàlla yóbbu nañu sepp ñu suñu ay biir moroom def ñu professionnel. j'étais le premier footballeur professionnel issu d'ici donc euh, tey bu ma liggéeyee ba pare ñibbi ci sama réew di gis tout le temps lu ma metti defe naa ni bu doon euh, euh, jàppale nit parce que comme ni nga wax rek secteur bu si nekk rek boo laal rek day metti am na l'éducation am na la sécurité ñi ngi rendre un hommage suñu euh, sœur bi nga xamante ni wax dëgg yàlla muy étrangère bi fi génn àdduna tax na ñu defar lii nekk seen ginnaaw pour wax na pour wax vraiment non à la violence parce que vraiment Grand Yoff étiquette bi yéen ñëpp ñi di liggéey ci presse xam ngeen ko te defe naa ni xale yi ko wax mu ni nijaay wutul ñu liggéey wutul ñu liggéey la réinsertion sociale mun naa ni parrain wu euh, mun naa maison d'arrêt yu bëri man maay seen parrain depuis des années donc di leen jéem indiwaat ci société bi euh, man kese mënuma ko parce que état mi ngi fi parce que tey les instances de décision boo boo si bokkul fi ñu koy waxtaanee li nga bëgg a def doo ko mën a def donc loolu moo ñu animé defe naa moo animé doomu Grand Yoff yi toog autour de moi pour ensemble ñu xool naka la ñuy joxe beneen xar-xaru kanam fi ñu dëkk muy Grand Yoff rawatina Sénégal. Euh, social ak politique bokkul. mais social politiciens yi social lañ ñuy naxee en fait pourquoi politiciens yi lañ ñuy naxee yow xam nga ni à l'approche des élections politiciens yi dañuy dugg ci kër yi dugg ci koñ yi di may ceeb di may dëwlin di joxe ay tusi di joxe ay kaar di jox ay nit xaalis ñuy dugg ci oto donc loolu je pense que social la dañ lay xiifal ba nga xiif ñu ñëw jox la loo xamante ni yaa ko yaa ko moom pour nga voter leen ñun nag. defe naa ni sociale bi euh, ñun ñëpp defe naa nit koo fi gis dañ koy dimbali muy dimbaliwaate yàlla nag mooy tànn doomu aadama def si moom li ko neex mën naa ne man footballeur laa woon musumoon xalaat sama àdduna dinaa toog ba naan damay damay nangu wala porté combat bi nga xamante ni c'est un combat mais tey soo gisee ma def ko mooy euh, gestionner les rues tooguma rek pour pour pour mun a nekk fii di wax non dama ko sillonné dama ko jàng dama xam fi ma dëkk xam lan lañ soxla xam lan mooy besoin bi xam ni mun naa avoir de partenaire des investisseurs parce que Grand Yoff du commune bu ndaw commune boo xamante ni daanaka 500000 habitants mi ngi fay yeewoo euh, euh, jeunesse bi di 70 pour cent jeunes loolu du ay caaxaan moo koy liggéey du ay parce que yaa ngi maye fii ceeb wala yaa ngi maye fii dëwlin non non donc loolu defe naa ni moo ma animé. ak nit ñi tamit mu nekk demande Gallo demande la quoi demande la yéen ay taskatu xabaar ngeen je pense que da ngeen di sillonné da ngeen di gis et je pense que loolu demande la bu population ak yaakaar gu ñu gu ñu am si man comme li ñuy wax nit bu amee di def boo ko doolee mu gën a def bokk ñu fenn ñun Grand Yoff lañ bokk ànd ñu wéeruwuñu topp ci benn candidat wala ci benn mouvance ñun on est képp koo xamante ni gis nga ni programme bi ñuy teg programme Yoff doy na la wala mën nga ànd ak ñun ci liggéey bi parce que tey benn xel doyul moo tax ñu woote ni kaay leen ñu ànd liggéey kaay leen ñu toog defar suñu Grand Yoff kaay leen ñu toog ànd defar suñu réew parce que ñun ay sénégalais lañu sénégalais kese ñoo mën a defar Sénégal donc loolu euh, beneen bi nag le programme bien sûr on a programme programme boo xamante ni ci secteur bu ne parce que tey Grand Yoff dafa divisé wu. dafa am Grand Yoff des Cités am Grand Yoff village bu la neexee Grand Yoff des Cités mën nga pavé tout de suite Grand Yoff village tu peux pas le faire tout de suite parce que dañu am problème canalisation dañu am problème assainissement donc loolu tuyau yoo xamante ni kër yoo xamante ni cinq à dix personnes la woon y a cinquante ans bi ko suñu waajur yi jëndee tey ñoo ñëpp def ay étages du tuyau yooyu tey def ay étages ay immeubles ay deux cent personnes di si yeewoo ñëpp du utiliser ndox ndox mi faaw mu ball te mënuñu dëkk ci ONAS tous les jours di woote ONAS loolu il faut il faudra ñu reprendre tout ce qui est assainissement foofu soog a mën a xalaat pavé wala soog a mën a xalaat suuf yi bëri na ci koñ yi ainsi de suite ainsi de suite je pense que loolu yëpp dañ ko jàng dañ ko sillonné insécurité bii ñuy wax il faut que ñu jox ndaw ñi espoir il faut que ñu wutal ndaw ñi liggéey il faut que ñu xam ni nit ku nekk boo sañoon doo bon ku sañoon yaay am di joxe donc tey jii loolu yëpp dafa nekk suñu ay jàngat dafa nekk suñu ay joytu dafa nekk suñu loo xamante ni dañ koy dañ koy dund tous les jours soo demee 100 mètres dafa am écurie Grand Yoff boo demee tribunal chaque jour yaa ngi fay fekk ay doomu Grand Yoff yu ñuy àtte mënumaa neex en tant que fils mënumaa neex man en tant que représentant de Grand Yoff di dem au niveau international di dem fu ne si àdduna bi di fier ni Grand Yoff laa dëkk fu ma waxee rek ñu teg dara ci ci deru Grand Yoff te man doomu Grand Yoff laa te defuma ko loolu moo tax ñu war a mun a taxaw pour xool naka la ñuy àndee ensemble pour defar Grand Yoff te damay dégg sama benn papa euh, yàlla na ko yàlla yërëm Ousmane Tanor Dieng gisee na benn jour ñu toog di waxtaan mun ma moom fii ma ne ko naam mun ma li nga moom boo ko jëlul ku incompétent moo koy jël di si def li ko neex te doo si mën dara je pense que il est temps que jeunesse bi jël seen espace et seen avenir merci ñun ñoo fi sonn ñoo fi dëkk ñun la nit ñi xam euh, kon balaa ñu koy dénk di ko jox ay loxo il faut que loxo yooyu mu ñëw waxtaan ak ñun lan mooy programme am ak lan la bëggal Grand Yoff ak fan la mën a jëme Grand Yoff bii nga xamante ni wax dëgg yàlla gis nañ ñi bu yokkoo tamit barewul bi ma waxtaan ak ñoom ñëpp d'accord ak xalifa li ma d'accord ak xalifa mooy euh, il faut ñu jàppale ko parce que dafa bëgg li yeggale liggéeyam la bëggoon yeggale au niveau de Dakar te wax dëgg yàlla dañ ko indiloon premier ministre muy Mimi Touré bi metti woon na si moom. bi ñu waxtaanee mu ni lépp luy sport ak social dina ko teg sama loxo ci comme comme ci loolu laay dox ma campagnal ko physiquement parce que mën naa ni 2014 laa arrêté sama carrière international sama carrière professionnelle ndax vacances kese laa ñëwoon maa ngi doon jouer première division Danemark mun naa ni samay sama bàyyi football ci loolu la jaare parce que gëm naa ni dafa am beneen mission bu ma war a dox Grand Yoff bu dul nekk à l'étranger du football dama war a toog sama dëkk jaamu yàlla ci nit ñi. donc bi ma ko defee campagne ko def ci li ma si war a def yëpp porte à porte def si sama doole def si sama kattan def si sama xam ànd ak population bi yàlla may ñu ndam. ah yàlla mi dara tawul tax li ñu waxante woon peut-être que amoon na yéene pour social ak sport bi mu ma waxoon mais antuwul mais jàngal na ma jàngal bi mooy j'ai jàngal bi mooy je suis jàngal bi mooy j'ai apris xam naa fi ma nit ñi teg xam naa la nañu xaar si man xam naa ndax mun naa ko wala mënuma ko même bu dee yàlla rek moo matal amul bi mu nekkee bi mu ma toog ay année gisante wuñu bi mu nekkee bi mu ko jàppee mu nekk prison ma seeti ko en tant que doom bi ma ko seetee en tant que doom kàddu yu mu njëkk génn si gémminam mooy il est temps que Grand Yoff ñëpp jàppale la kàddu yu mu njëkk génne si gémminam mooy il est que Grand Yoff ñu ànd ak yow loolu la ma wax ma ne ko dama la seet si rek en tant que doom parce doom laa bu sa waajur nekkee ci tolof tolof yoon la nga seeti ko donc defe naa ni loolu moo a lié ak xalifa mu nekk sama papa euh, seeti naa ko ñaari yoon en prison bi mu génnee seeti naa ko barki démb ci dëj bi ña nga fa woon ñu koy jaale suñu yaay ji yàlla na ko yàlla yërëm te yeexe ñu euh, mouvance présidentielle nag bi nga tudd léegi euh, mun naa ni ñun ay ndaw lañu yu wéeruwul fenn fudul Grand Yoff quand j'ai vu président de la République Macky Sall li ma njëkk wax mooy yow yow lu tax nga bëgg Grand Yoff man Grand Yoff laa am man awma leneen lu dul Grand Yoff su ngeen gisee muy présidentiel wala lu lu nekk lu ñëw rek ñu ni ma fan lañ jëm ma ni man bokk ma ñu ni ma kan ngay àndal ma ni kenn parce que man Grand Yoff laa bëgg béy nag ci sa woyu tànk dañuy commencer fi ñu dëkk ba pare peser suñu bopp xool ban liggéey la parce que nit ki looy def da nga koy commencer sa biir kër on a envie de changer notre pays mais Alassane dañ koy commencer fii ñu dëkk mun nañ ñu tey social bi ñuy wax yamul Grand Yoff rek yéen yow Alassane ànd nañ bataay suufu pont yi ànd nañ feneen ak feneen depuis année yi ma doon ñëw vacance mais tey dañuy commencer d'abord suñu localité xool nañ lañ koy développer xool nañ lañ koy changer pour war a mën a mën a yeneen jeunes yi nekk ci yeneen gox yi mën ci roy pour leneen donc tey ñun exclure ñu dara mais tamit képp ku bëgg ñu jàppale pour lu war a mën a développer Grand Yoff ñun ubbil nañ la suñu ay bunt